Amélioration de l'offre sanitaire au niveau de la commune de Tiwan Jaksao, l'association africaine pour un avenir meilleur 3AM octroie une ambulance médicalisée à l'unique poste de santé de la localité. la rencontre qui nous réunit a pour prétexte la remise de clés d'une ambulance médicalisée au poste de santé de Tiwan Jaksao, commune qui regroupe 35 000 âmes. La disponibilité d'une ambulance médicalisée ici au Sénégal, c'est comme si tu prépares le tchéboudienne sans un bon poisson. On évacue les malades soit en empruntant des taxis clando. Mais il y a des évacuations impossibles, puisqu'il y a des heures où les taxis ne roulent pas. Par exemple, ici à tuawon il arrive qu'il y ait des femmes qui arrivent à terme et que le poste de santé ne peut pas prendre. C'est vraiment un problème de santé publique qui se posait. Donc c'est ça qui a motivé l'association à solliciter ses partenaires. Donc ce sont ses partenaires italiens que l'ambulance vraiment a été acheminée. Donc si on fait le cumul de l'ambulance, c'est presque 20 millions. La cérémonie de réception de cette ambulance a été aussi suivie par une remise de diplôme à une trentaine de filles formées en technique de culture maraîchère, nous dit encore Famara Radio coordonnateur de cette association. Dans la même cérémonie, il y a une remise de diplôme attestant une formation formation sur euh, toutes les techniques maraîchères et sur la valorisation des déchets. La formation a duré trois mois et elle est sanctionnée aujourd'hui par une remise d'une attestation. Les bénéficiaires de la formation de leur côté, par la voix de Ndiémé Diouf, ont tous salué l'acte posé par l'association. Je suis très contente pour l'association. Je ne reste jamais à la maison. Je vais travailler pour aider la famille. Créée en 2016, l'Association africaine pour un avenir meilleur 3AM s'évertue depuis lors à la lutte contre la pauvreté par la formation, l'éducation citoyenne environnementale et à la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat. ngir gën a mën a yombalal paj askanu Tiwaawan Jaksaaw bi nga xam ne léeg-léeg sax dañ doon am jafe-jafe ngir daal di yóbbu ñenn ñu feebar surtout bu fekk ni guddi la association africaine pour un avenir meilleur 3AM moom jagleel na poste de santé bi nekk si gox boobu benn ambulance médicalisée. rajo fii Tiwaawan Jaksaaw ngir may suñu poste de santé bi ambulance médicalisée lenn rek moom moo tax ñu joxe ko mooy fexe li nga xam ne mooy problème mu santé ambulance bi ñëw am ci lu mu ci yokk ci njëriñu askan wi buñ ko doon xayma daal ñaar fukki millions état nag moom moo fay 4 millions 500 pour ñu dédouaner ko. da ngay xool ab gox boo xam ne 35 000 personnes ñu ngi fiy yeewoo. amul ambulance. Euh, jigéen defal na ma témoignage ne ma. ci couvre feu bi am na benn femme boo xam ne dañ ko doon évacuer. nee na bi ñu génnee amuñoon oto bu ko yóbbu bi ñu demee poste de santé bi am na benn moment boo xam ne du ñu tijji ndax dañuy tiit femme bi nee na euh, ndaw si tuuti mu accouché ci biir oto bi. parce que boo xoolee kon boog association troisième bi nga xam ne yaa koy jiite ñu leen di gërëm di leen sant ndaje boobu taxoon na ñoo ñooñu jiite association bi si kàddu Famara Diop daal di jox tamit ay diplôme ay xale yu jigéen yoo xam ne dañu leen daal di tàggat ci waaru techniculture maraîchère formé na weeri xale ak benn li ci ëpp nag ay jigéen lañ secteur yi nga xam ne bu fa laalee mu am yokkute association bi accès fa liggéeyam ñi nga xam ne ñoo bénéficié wu ci formation bi ku ci mel ni Ndiémé Diouf yore seen kàddu ñoom rafetlu nañ bu baax li nga xam ne association 3AM moom la def di man mën naa ne depuis ba bàyyi jàng bi moo tax heure bu ma xëyee damay génn suñu kër te dama si fier ñu sanc ko si atum 2016 association africaine pour un avenir meilleur 3AM boobu ba léegi mu ngi bay waar ngir mën a xeex ñàkk jàllale ko si tàggat ndaw yi ci mbirum gàncax gi xeex ñàkk xëyu ndaw yi jàllale ko si entrepreneuriat